Euh, sant Serigne Touba si Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñaanal Serigne Mountakha Bassirou suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram ba lim yéene ci yoon wi lépp suñ boroom àggale ko ñaanal tamit Serigne Sidil Muxtaar Mbàkke suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te yàlla sàmm ak njabootam di leen nuyu te di leen siyaar ci turu Serigne Ahmadou Muxtaar mi euh, di xalifa Serigne Modou Moustapha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 te dëkk bi tamit bépp borom xam-xam mi ngi yewoo ci biir dëkk bi fas yéen nañ tamit ki nga xam ne tamit tey moo fi nekkal Serigne Touba de Serigne Mountakha lim njëkk a tàmbali ci xam-xam la ne ab lëggéeyam ca la koy tàmbale Serigne Ahmadou Makhtar mi tamit lépp loo xam ne mi ngi koy sonn ci xam-xam la koy tàmbalee tey ma ngay taxawu daara ya ma ma ma nga cey sonn école bi nga xam ne yaakaar naa bu njëkkut bokk na ci ci jiitu magam moo ko fi indiwoon di Serigne Cheikh Gaynde Fatma Serigne mon Serigne Mourtada gis nañ ci lim liggéey ci wàllu jàng ak jàngale ci école kon Touba dëkk sàkku ay xam-xam nañ te it xaaruñ état ci dara. lépp loo xamante ni bii nag dañoo nekk ci yoon wi di ko def bañ dab leen fekk leen ca danañ leen sargal xam ne ay citoyen lañ ay doomu réew mi lañ te li leen war ñanga ca kon tamit li war waa réew njiitu réew mi. ci dëkk bi na ko ci def ndax fii moom xam-xam rek moo ñu yitteel leneen li ci des Serigne Touba fàggul nañu ko te ñu ngi ca yoon woowu. léegi tabax nañ juróom benn fukki daara ci fu ñuy wax Pomod bi fanweer yi dañ ko def privé fanweer yi def ko public kon daara yooyu ñu tabax Touba man miñ ko tegoon sama loxo ma ne leen dangeen di def lu mat sëkk. ñu door koo mën a jariñoo ngeen ñàkk def lu mat sëkk ñu tëj ko ngeen ñàkk def lu mat sëkk nag mooy ngeen tabax ay classe salle de classe bañ fee def xale yi fi ñuy jàngee wala fu ñuy fanaan wala tamit ngeen tabax daara yi ba pare bañ leen a yor te école la ci war yéen a ngi koy def daara yooyu tamit li liñ ciy jàngale mooy njàngaleem Serigne Touba ñëw nañ ci sama daara ma wan leen ko bañ ko gisee ñoom ci seen bopp teg nañ ci seen bët ndax tabax nañ fa ay étage am na ay caméra de surveillance luñ fa war a xam ñoom teg nañ seen bët ma ne ko man ci sama bopp daara ji ma yor soxlawuma ci état dara ndax Serigne Touba defal na ma ko te ñi ngi liggéey di jàngale daara yi nga xam ne nag état moo ko tabaxal ci kër Serigne Touba ci Touba la ca war na ko ca def ndax tamit am na daara juñ tabax Mbàkke Kajoor ba pare man la ko sëñ ba joxoon waaye la ca war lépp man maa koy def buñ bëggee ñu yor ko la ca war nañ ko taxaw léegi bi ma ko waxee ministre bi ministre bi yebal euh, directeur équipement scolaire yebar moom mii nga xam ne mooy IA e bi ak DSS DSS kii nga xam ne moo ko tabaxoon kii bokk ci inspection de daara ñu def benn kii ñëw bi ñu ñëwee wër nañ daara yëpp bañ noppee ñu dem euh, kër sëñ Ahmadou Makhtar fa lañ añee wax ko li nga xam ne moom la gis moom mu wax leen ni mu bëggoon nga xam ne léegi fii ci Touba sëñ Cheikh Gaynde Fatma am na lu mu liggéey ci njàng mi sëriñ mun sëriñ Mourtala am na lu mu liggéey ci njàngale mi sëriñ Touba it ba may sañc dëkk bi dafa doon jàngale ñu wax leen ko ne sëriñ bi jàngale la bëgg sëriñ bii fi nekkal sëriñ Touba tamit biñ ñëwee dem nañ ca daaree sëriñ seex mi ñu xool liggéey ba mu fa liggéey ak kenn ko ne fa mu toll wan leen ne Touba moom ku dem mu dem ku demul mu dem te li leen war nekk leen ci li ñu war ñu nekk ci lii moo doonoon yoon moom mii nag ñu ñu ñu fal ko mu jiite iyaa mu ñëw fii mu ne dafa bëggoon a ñëw far yàlla dogal démb la ko ministère bi woo ñi ko jiite ne ko léegi dem leen Touba ngeen def mission bi fekk moom nekkut njaareem mu ne moom du yebal kenn day ñëwal boppam